ñoo ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu si waat nañ di santati suñu boroom subhaanahu wa taala bu baax moom mi nga xam ne moonu baaxe woon ñu tàmbali téere bi ci bismillahi arrahmaani irrahim ñi di ko ñaan mu may nu nu yeggali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ak mboolem mbokki jullit yi nga xam ne ñoo baaxoo di topp njàngalem cheikhul xadim mii di tazawud sixaar ak fuñ ko man di dégloo ci àdduna bi kon téere bi yàlla dogal na amoon nañ ci fanweeri bind ak benn tey ñu war a tàmbali fanweeri bind ak ñaareel bi muy numéro 32 insha allahu taala ci fi nga xam ne mooy baabun fil ixsaani ci ndénkaan yi ba fi sëriñ bi di tëggee wax yonent bi sallallahu alayhi wa fi muy dénkee njabootam gi ñu màng juróomi mbir balaa juróoma mbiri agsi ñu màng juróomi mbir balaa juróoma mbir di aksi di yàq juróomi mbir yooyu nga xam ne moom lañ waroon a màng te mànguñu ko ba juróom ya dikk kon juróom yooyu mooy juróom yii nit ki da koo war a profitoo ndax bu ko ñàkkee benn bu nekk bu ab safaanam dikkee jële ko fi bu boobaa la nga waroon a def ca booba muy lu baax da nga koy ñàkk ndax safaan ba aksi te bu safaan ba agsee rek la nga xam ne mooy la waroon a sax day daal di xañu kon sëriñ bi mu ngi tàmbalee tey ci waxtani mu xamsan qubaylal xamsi kama bihi amara xayrul insi mu ne waxtani mu na ngeen màng xamsan juróomi mbir qubaylal xamsi njëkk juróomi mbir kama ni ki nga xame ne amara digale na bihi ca moom xayrul insi gën ji nit muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nangeen màng juróomi mbir jëfandikoo ko balaa juróoma mbir di dikk juróomi mbir dikk di leen folli juróom yii yu baax lañ benn boo ci def am sa tuyaaba saa bu benn dikkee ca safaanab yooya mooy tëlëg def loola day daldi sax moo tax mu ne alayhi yàlla na nekk ci moom xayrul insi afdalu salaatin ngën ji julli bi salaamin yu ànd ak kóolu fii aalihi ci ñoñam ya wa saxbihi aki saabaam alxurri yadi sang ya alkiraami yadi way tedd mu ne yàlla na nekk ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo di gën ji julli suñu boroom subhaanahu wa taala ak gën gi dolli ay wóolute ci moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam te def ko ci ay ñoñam ak i saabaam ya nga xam ne ñoo di way sang te ñoo di ña nga xam ne ñoo di ñu sell ña mu ne juróom yooyu awwaluha ba sa njëkk ak njaal beenam ashabaabu mooy ak waxambaane qablal hërami balaa ak màggata dikk mu ne jamono bi ngay nekk waxambaane na nga profitoo ci sa waxtu ndaw balaa ak màggata dikk bu màggat dikkee rek tële day daa dikk ndax ku nekk xam na ne waxtu ndaw waxtu katan la ak banex waxtu aduna la waye nak waxtu mag mom waxtu choona la ak xel muy dem ak ku tële suñu borom subhanahu wa taala waxna ci ko ci alquran karim allahu alladi xalaqakum min dofin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم نينا Euh, suñu borom subhanahu wa taala ni mu ko waxee ci alquran karim moo ñu bind si ñàkk kàttan ginnaaw ñàkk kàttan gi mu indi kàttan ginnaaw kàttan googu mu rot ci kàttan nga jëlewaat ko fa indi fa ñàkk kàttan noonu rek la koy toppantee ba li nga xam ne moo di bu mujj bi ci mbir yi jële dikk jëleñu fa wa misluhu ni ko ki am kemam as-sihhatu lii nga xam ne moo di wér qabla saqami balaa wéradee dikk mu ne na nga profitoo sa waxtu wi ngay wér jaamu yàlla balaa ak wéradee dikk balaa wéradee dikk na nga profitoo ci jamono bi nga xam ne yaa ngi wér am kàttan nga jaamu yàlla ndax bu wéradi dikkee rek ricc dong moo fay nekk bu ma wéroon day dellu def nangam ak nangam ak nangam te ma xamoo ba xam wéradi ga da sa jóge wala doo sa jóge suñu borom rek xam thaalisuha ab ñetteelam ci juróom yooyu alxinaa moo di koom koom jamono bi ngay koom di am alal mu ne na nga profitoo def lu baax xablal faqri balaa ñàkk dikk jamono bi ngay am na nga profitoo sa alal jii ni nga def si lu baax bu la asaka waree nga génn ko ñi nga xam ne danga leen a tare tane ñu loru nga dimbali leen ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala dong tax te bul puuka réew la nga xam ne man nga ko sax bu baax a baax léeg leen nga wàcc wàcc lu bañ koo def ngir xool ci dëkkandoo yi wala mbokk yi nga xam ne yàlla woyafal na seen mbir yow bo mané fukk ñom bin ben sax mënuñu ko kon bu fekkee né jëfëndiko nga la nga am lépp xeyna bu boba seen xol man na jeex nga dimbalé len ci la nga xamné mom moom la la yàlla baaxee summa al faragh waqtu am jodwa qabla shughlin bala ngay ñak jot yasri bo xamné dana jégé mu né jamono bi nga xamé né ya nga am jot def dara na nga profito nga def dara bala ñak jot di dik ndax jamono ba nga xamé né ya nga am jot nga mënon na def dara defoo ko jamono boo demee ba ñàkk jot da ngay rëccu naan bu ma dellu woon ñàkk jot day danaa def nangam ak nàngam fekk ñàkk jot googu xëy na sax duutu la ganee si te rëccu nag taxaw na ba noppi kon jamono ba nga xamee ne yaa ngi ñàkk jot yaa ngi am jot profitool def lu baax balaa ñàkk jot di dikk ndax loolu lu bari lu muy am ci àdduna bi la xaamisuha ab juróomeelam alxayaatu moo di dund gi lépp xablal mawti balaa dee di dikk mu ne juróomeel bi mooy jamono bi ngay dund na nga profité sa dund gépp nga def ko dong lu neex suñu borom subhaanahu wa taala balaa dee di dikk ndax wax na ko ci fi nga xam ne moo di masaalikul jinaan wa arxabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya ma al xayaati nee na ñi nga xam ne ñoo dee ba nekk ci biir barsaq nekk ci biir bàmmeel boo leen fëkk-fëkkaloon laaj leen lan ngeen gën a bëgg ci jamono bii dañ naa leen dañ lay tontu ne la ñun de liñ gën a gën a gën a gën a bëgg duñ wax sax dem àjjana waaye mooy dellu àdduna buñ delloo àdduna def fa tuuti lu baax rek ndax buñ dikkaatee fii ñu amul naflaay gu baax a baax suñu borom subhanahu wa taala tamit wax na ko ci suratul munafiquna wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yaatiya ahadakum al mawtu fa yaqul rabbi lawlaa akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min alsaalihin walan yuwaxira allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirun bi ma taamaluun nee na ngëneel li nga xam ne moom la la saa borom subhanahu wa taala jox nee na nanga si def lu baax fàggandiku la si lu baax daal di si jox ngir jëm bi suñu borom min qabli an yaati ahadakum mawtu balaa dee dikk di taxaw su ko defee nag ngay réccu naan yàlla ay waay boo ma nigee woon tuuti mayaat ma tuuti donte ay fan la sax yoo xam ne dama koy dundaat bu boobaa day fa asadaqa fa asadaqa danaa saraxe wa akun min asaalihina yàlla ne la déedéet Mhm. du la delloo mukk mukk ci àdduna ndax bu ma la delloo it nga nekk ca la nga nekkoon donc te nag suñu borom subhaanahu wa taala nee na moom dee bu dikkee ba taxaw du mayaat kenn keneen benn dikk ndax la nga xam ne moom la bindoon ne moom la lay dund moom moom la lay may nga dund ko agsi na ba noppi fa saariu na ngeen njëkkalante lil xayri jëm ci aw yiw xablal fawti balaa faat ga di taxaw mu ne bu aw yiw taxawee na nga profitoo def lu baax balaa faat ga di taxaw lu baax lu nekk rek bu ñu nee bu ñu la wooyee ci lu baax rek profitool nga def ci lu baax comme ni ko alquranul karim waxee yaa ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxiikum yéen ñi ngeen xam ne yéen a gëm bu leen yàlla akub yónanteem wooyee ci loo xam ne da leen di dundal na ngeen wuy ji lu leen di dundal liñ si jublu mooy li nga xam ne mooy dundal seen xol li nga xam ne moo di dundal seen gëm yàlla kon na nga profitoo balaa li nga xam ne moo di faat di su su boobaa nag nga nekk koo xam ak rëcc kon foofu rek nit ki moom faaw mu nekk benn ci juróom-ñett yi rek samaaniyatun laa budda lil mar an yaraa fa samaaniyatun laa budda lil mar an yaraa wa laysa lil mar i xayru sururun wa xuznun wa jitimaacun wa furqa usrun wa yusrun thumma saqmun wa aafiya juróom-ñett mbir yi moom doomu aadama bi fu man di nekk rek dana nekk benn ci yooyu noonu sururun muy mbégte wa xusnun wala jàqare wa jitimaun wala nekk ci mbooloo wa furqatun wala wéet wa suru samaniyatun laa budda lil mari an yara wa laysa lil mari xayru samaniya sururun wa xusnun wa jitimaun wa furqa usrun benn nga nekk ci jafe-jafe wa yusrun wala nga nekk ci ak njàppanal thumma saqmun wala nga wéradi wa aafiyatun wala nga amuk wér-gu-yaram juróom-ñett mbir yooyu moom doomu aadama ci ak dundam 24 heures sur 24 mënta mujj ci mucc ci benn ci yooyu huna fii day intaha jeex na tasawudu sixaar téere bii nga xam ne moom laa tuddee woon tasawudu sixaar bi xam rab bii ànd ak sant sama boroom almaane ki nga xam ne mooy aji tere as saxaari li nga xam ne moo di doyati fii la tasawudu sixaar jeexee kon di delluwaat kon mu ne di santati sama boroom na ma ko santee woon ci njaalbeen ga sama boroom bii nga xam ne mooy tere lii nga xam ne moo di toroxtaane di xew ndax boom koy ubbi dane woon alhamdulillahi alladi ahsana ihsaana man laysa yazaalu muhsina kon fii tamit ci eh, fi nga xam ne moo di njeexantali dafa dellu siwaat di santati boroomam subhaanahu wa taala mu ne nazamtuhu way naa ko li wajjihi rabbiya ngir jëmmi sama boroom alkarimi kay aji tedd murtadi murtajiyan mbir mu may aji yaakaar minhu ci sama borom sawaaban ab yool boo xam ne laa yarimu du taxaw mukk mu ne way naa ko ngir jëmmi sama borom subhaanahu wa taala dong moom mi nga xam ne ci moom laa yaakaar yol boo xam ne mu mukk mukk mukk muy taxaw ndax mboolem li nga xam ne moom la def lii lépp daf say am tuyaaba ak tuyaabay ku sa jëf daf say am tuyaabay ku sa roy daf say am tuyaabay ku sa waxtaan ku sa firi daf say am tuyaabay ku sa jàng te loolu moo nekkoon mébétam nazman muy away way yaquudu wow dana wommate lil ulumi jëm ci xam-xam yu bari ya wal amali ak jëfe leen walit walit taaddu bi ak tamit tegginu tegginu yu yassiru goo xam ne dana yombal al mébét yu baax ya mu ne way naa ko way woo xam ne damay ñaan mu mébét nit ki jëme ko ci xam-xam ya maanaam daal ku ko jàng jiital ko yàlla na nekk yàlla na yàlla def mu nekk sa balluwaayu xam-xam yi bu mu nekk sa mujjantal waaye yàlla na nekk sa tàmbali boo xam ne xam-xam yu baree baree bare bari dañ siy dikk te yëpp barkeel te it maa ngi koy def mu nekk loo xam ne dama see bëgg ku si jàng xamee si ay teggin teggin yoo xam ne dana yombal mébét yi mébét yi nga xam ne moom la nit ki di mébét ci àdduna dëppoo na lool ak nit ki moom lu mu amul yar lu mu lu su tegginiwul lu mu lu mu lu nekk rek da koy jafe mu ne urjuzatan muy tëgginu rajes naafiatan wuy jariñe mubaarakatan wudi wu ñu barkeel musharakatan woo xam ne danañ ko bokk bayna dawi saadatin diggante ñetti way boroomi texe ya mu di aw rajas wu am njariñ wu barkeel woo xam ne yàlla na ko ñëpp bokk ñi nga xam ne dañuy ay boroomi texe mu ne wallaahu yàlla rabbi ya sama boroom xabula yàlla na nangu dan nizaami wila way bi jaahil muntaxaa ci jëmmi ki ñu tànn ka salla yàlla na dolli tedd nga alayhi ci moom bi salaamin ci kóolute goo xam ne yuntaxaa danañ ko tànn mu ne maa ngi ñaan sama borom subhaanahu wa taala yàlla na nangu wila way ci barkeb jëmm ji nga xam ne mooy ki mu tànn di muhammad sallallahu alayhi wa sallam naafi am njariñ naafi an muy jariñe muy jariñoo bihi ca moom kullu daidin kulla daidin kulla saidin képp koo xam ne ku war a texele rek naasixin tey aji laaye biir muntabihin képp koo xam ne aji yeewu la maa ngi ñaan sama borom subhaanahu wa taala ci barkeb ki mu tànn muy Muhammad yàlla na am njariñ njariñal képp koo xam ne way texe la tey nekk loo xam ne laaye biir lay doon goo xam ne ñeel képp koo xam ne ku yeewu la ko am xel falaa yazaalu te bum dañ mukk nag moom téere bi jaali ban aji ñoddee ilaa buruur jëm ci ak mbaax wa tey aji jariñe kulla shaqaa in wa daafi an ngeen baal ma falaa yazaalu bum dañ mukk jaali ban di aji ñoddi ilaa buruur jëm ci ak mbaax wa daafi an tey aji jañ kulla shaqaa in gépp te xeedi wa xururin ak woru mu ne maa ngi koy ñaan mu nekk loo xam ne ku ko jàng rek dalay xëcc sawar loola tàggat sa say cër ak nooyal sa xol ci bëgg lu baax te tamit di jañ di jañ lépp loo xam ne rek ak texee di la goo xam ne day xañ doomu aadama wala ak waru mu ne adina digal na day lii ñeel ma allahu yàlla assamad ki nga xam ne moo di kilifa gi fi nazmihi ci aw wayam wala yajurru te du xëcc lii ñeel ma dawaaya kamat lii nga xam ne moo di way ñot di alkane wa lii nga xam ne moo di way ñot di nëx-nëx ya yàlla du ko xëcc mukk jëmale ko ci man mu ne yàlla mi nga xam ne mooy sama borom tey kilifa gi moo ma digal ne naa ko way tey du xëcc mukk jëmale ci man lii nga xam ne moo di sabab yey sabab lii nga xam ne moo di nëx-nëx ya nazamtuhu way naa ko li wajjihi ngir jëmmam ja moom suñu boroom alkarimi kadi aji tedd ja washtara jënd na silaayi samam njaay maa takrimi ànd ak teral ga mu ne way naa ko ngir jëmmi sama boroom subhaanahu wa moom mi nga xam ne jënd na samam njaay ànd ko lii nga xam ne moo di teral teral ma bu baax a baax kon alhamdu maa ngi dellu siwaat di wax ne tagg gu mat lillaahi aj yay la ñeel yàlla wa sallaata yàll na dolli tedd nga sarmadan fàwwu ala shafii ci aji xettali ji yowmal xiyaam dil mazaaya kadi borom may kaweya ahmad mi nga xam ne moo di ahmad wa aalihi ak ñoñam wa saxbihi ak i saabaam wa yaxmadu te day sant rek maalikahu boroomam ba al abdu kadi jaam ba alxadiimu kay aji liggéeyal ahmadu ahmad muy ki nga xam ne moo di liggéeyal ahmad mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne ay mayam du dog maa ngi sant yàlla te di ko ñaan muy julli faw ci ki nga xam ne mooy aji xettale ji aji ràmmwaate ji borom may kawe yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sotti ko ci ay ñoñam te timit maa ngi sant borom bi nga xam ne borom jaam bi nga xam ne mooy liggéeyal ahmad day mi ngi dellu si waat di santati boromam subhaanahu wa taala subhaana tudd naa selluk rabbika sa boroom rabbil izzati kii boroom tedd nga ji sa set wecc amma walis lépp loo xam ne yasifuuna dana ko melal way weddi yàlla yi te jàmm alal mursaliina yàlla na nekk ci yónanteem wal walhamdu te tagg lillaahi aji yay la ñeel yàlla rabbil aalamiina yàlla mi nga xam ne moo di borom bindeefi suñu borom subhaanahu wa taala lii la jeexantale lenn ci saare alxuraan yi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna maanaam gën a setal boppam jëmmam ja te gën a dëggal lii nga xam ne moo di ndamu lii nga xam ne moo di ay yoonanteem ne daañu am ndam ulaika kataba katab kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuliya inna allaha qawiyun aziz yàlla digal na ne dana gañe te ñi nga xam ne ñoo di ay yónanteem danañ gañe kon ñun ñii tamit ñoo nga xam ne ñoo doon jéemoo sàkku tuyaaba ci téereb Cheikhul Xadim bii nga xam ne moo di tasawut si xaar ñoo ngi koy delluwaat di santati bu baax a baax a baax moom mi nga xam ne li ñu ko ñaanoon rek la ñu may muy tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñaan nañu ko ko may nañu ko te diggante bi ñu bari jóge nañu fi lu bari xew na fi te bu ko neexoon mu bañ ñu ko may may gi mu ñu ko may nag sant nañ ko dolli ko ca lañ ko santeel te suñuy sant yi ñoo ngi ñaan bu mu dog mukk ñoo ko amee sant ñoo ngi koy sant ñoo ngi ñaan lii nga xam ne moo di ay xéewalam yàlla na ko sotti ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba faww lii nga xam ne moo di ay yoolam ak lii nga xam ne moo di ay ngëneelam lii nga xam ne moo di ak nanguy jëfam lii nga xam ne moo di ay teraangaam ak lépp yàlla na ko jagleel cheikhul xadim ba faww yàlla na ko yàlla so dollee sotti ay may yu dul dog ba faww te ñii nga xam ne ñoo di waa këram yi di ak njabootam yàlla na leen fi bàyyi guddal seeni fan te dëppale leen lii nga xam ne moo di ay bëgg-bëggam ñii nga xam ne ñoo di njiitu yoonu murit wi yàlla na leen dëppaleeg lii nga xam ne moo di ngërëmal suñu boroom subhaanahu wa taala yàlla mën na ko yàlla na ko def wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ba beneen yoon